إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين mbokk yi ñi ngi sant suñu boroom ñi ngi seede na yàlla rekk moo yeyoo ñu koy jaamu kenn wurta yaakaar ku dul moom kenn wurul ragal ku dul moom kenn wurul sukkandiku lu dul ci moom ñi ngi koy ñaan mu julli ca yonentam ba sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ak njabootam ak ña koy roy ba ila yawmi diin gannaaw loolu mbokk julit diine ji ñu yàlla tànnal day mooy diine yi sellal mooy melokaan bi suñu boroom bëgg julit bi mel ko mooy biiram sell set bitteem sell ca set borom bi nee na noonu laa cuube la nga xam ne mooy samay jaam looloo tax ba julit day boore sellal pas-pasam sellal xolam waaye sellalit la nga xam ne moo ko wër commencé ca jëmm ja ca yére ya ba fa muy dëkkee ba lépp moo tax suñu borom ni wa siyaabaka fatahhir wa rujza fahjur laabalal sa yére laabalal sa pas-pas bu ko defee ab julit day xam ni suñu borom yàlla daa bëgg jullit bu laab jullit bu set wecc rasul sallallahu alayhi wa sallam mas nay wax ak saxaaba yi lu jëm ci wàllu rëy ba ne ki nga xam ne day biir xolam lu toll ne pepp zarra ma nga ca ci poussière ci rëy du tabbi aljanna lenn ci ñoom jàppoon ni di sangu ba set di sol ay yére yu set loole day bokk ci rëy ba am ko ko laaj yonent bi alei salaatu wasalaam yonent bi ne ko déedéet suñu borom daa taaru bëgg a taar daa sell bëgg lu sell looloo tax ba jullit mboolem ay colam day doon loo xam ne lu set la mi ngi noonu lu taaru la la nga xame ne nii mooy la yàlla bañ kay mooy koo xam ne dangaa xeeb nit ñi ak koo xam ne da ngay bañ a dégg dëgg mbokk suñu yonent sallallahu alayhi wa sallam melal na naka la juril war a mel mun a xam leen ne day seen borom yàlla bëgg na ci yéen fukki mbir yi mooy ñi nga xam ne ñuy góor ñi nañuy wàññi seeni moustache buñ ko def na ko tubaab bi def bàyyi ko mu sëq lépp nañuy feeñal seeni sikkim di bañ a wat sikkim ya ndax loolee ci taar la bu yàlla taaral góor la mu digal leen ñuy socc socc boobi daana wax ne su ma bañul woon sonal nit ñi danaa wax balaa kenn julli na socc muy jur ngërëmal yàlla mu sant leen loo xam ne dina ñëw ca njàpp te mooy gàllaxndiku ak saraxndiku nga xam ne day setal sa gémmiñ gi setal la nga xam ne nii moom mooy say bakkan noonu la sante ñuy lelli weyi jullit du bàyyi ay weyam lu romb ñeen fukki fan ca wàññiwu ko noonu la santaane it la nga xam ne nii mooy karaw ya nekk ca naq ya buñ ko bàyyi lu ëpp ñeen fukki fan ak karaw yi poqtaan ya santaane ni nii nañuy doon di raxas diggante baaraam yi waaye loo xam ne tumuranke woon na it ci arab yi mooy ngallaawaay kenn ci yéen bu demee douche nay jëfandikoo ndox bu amee ndox moomii mbokk lii la islaam digle yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ànd ak ay sahaaba ñu romb ci armeel ya benn xabru wala boog ñaari xabru mu ne ñaar ñii day ku nekk ñi ngi koy mbugal ca ñoom jàpp ñu woon ne def nañ loo xam ne sax lu màgg la amma kenn ki da doon dox ci rambaaj diggante nit ñi amma ki ci des bu daan dem di saw day bàyyi saw mi di tuuru ci ay yéreem loole mu jóge fa jàpp dem julli julli géegee doon du doon julli gu baax loolee kon ku nekk war a bàyyi xel heure boo demee wanag nooy def ba la nga fay génne du delluwaat ci sa yére mbokk lii nga xam ne mooy ak laab suñu borom yàlla dañu ko tënkal ci ay aaya ci téeréem bu tedd bi mu ne ay yéen jullit ñi heure bu ngeen waajee jëm ci julli raxas leen seen kanam yi raxas leen seen loxo yi masaa leen seen bopp yi ca raxas seen tànk yi loolu mbokk mooy la nga xam ne mooy am njàpp nga xam ne xutba tey bii mi ngi gën a jëm ci ngëneel yi nga xam ne moo ci nekk waaye borom bi subhanahu wa taala ni su ngeen àndeeg janaba kii ànd ak soxnaam soxna see doog a laab ci règle wala doog a laab ci dërëti wasin borom bi nee na yow da ngay sangu ay da ngay raxas sa yaram yépp loolee la borom bi subhanahu wa taala digle mbokk loolu di diine lislaam di diine yi kon laab ci mboolem loo xame ne nii dafay mën a indi ak tilim looloo tax boo delloo ci ñi nga xam ne dañuy jaxa jaxasoo ak seeni soxna ca xamuñu cangaayu farata day am xet goo xam ne nii daf leen di topp loolee mbokk ñu bàyyi ci xel su ngeen jógee jëm ci julli laab leen su ngeen waree sangu sangu leen looloo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam doon wax julli day ni muy def doomu aadama mi ngi mel ne koo xam ne daa amoon benn dex gu neex ci buntu këram bés bu nekk mu sangu ci juróomi yoon mu ne waaw ndax kii tilim dana des ci moom ñu ne ko déedéet mu ne julli juróomit noonu lay def doomu aadama ndax bala ngaa julli da nga jàpp njàpp ma day far bakkaar ya julli gi day far bakkaar ya lii mbokk mooy la nga xam ne nii ku nekk ci ñun war naa bàyyi xel mbokk lislaam dafa santaani ñu laabal la nga xam ne nii moom mooy suñu kër yi yonent bi alayhi salaatu wasalaam da doon wax saxaaba ya bu leen mel ne yahud yi nga xam ni dañuy dajale ay salti ci seeni kër ay laabal leen kër yi looloo tax islaam dafa bëgg kërug jullit heure boo fa duggee loo gis rek day doon loo xam ne lu sell la lu laab la laab googee daa bokk ci ngëm yàlla noo nit la bëgg ñuy laabal jàkk yi looloo tax rasul sallallahu alayhi wasallam ne yàlla bi muy won fay yi muy fay sama xeet won na ma sax koo xam ne benn bant bu ndaw boo xam ne mooy li ñuy dugal ci diggante bëñ yi moom la gis ci jàkka ji mu jël ko daal di koy génne loolee moo taxoon ba ca jamonoom am na soxna su ñuul soo xam ne da daan bale jàkka ja ba mu toogee ay fan gisu ko mu laajte ko ñu ne ko moom kat daa faatu woon waaye naaj bi tàngoon fekk nga woor moo tax dérangé wuñu la kaza wa kaza yonent bi mer lool ne lu teewoon ngeen wax ma ko jóg leen ñu dem ngeen wan ma xabroom ànd ak saxaaba yee ba ca xabru ba jullee ko fa ngëneel boobu lu ko mayoon soxna soosee mooy laabal ga nga xam ne da ko doon laabal néegub yàlla bi kon képp koo xam ne yaa ngi taxaw di laabal néegub yàlla bi bokk na sunum néeg bi yal na yàlla subhanahu wa taala laabal la waaye dégg ci yewit jullit ngëneelu indi ngëneelu dindi sobe ci jàkka bu dee nii la toll xamal na it tilimal jàkka musiba ba noonu lay toll loolu tax ba nga lawaay yow mi dem ci douche ba boo jàpp ne douche publique la rek faj sa aajo dem sa yoon bàyyi ko nu mu la neexe génn ak say tànk yu tooy jaar ca moket ya jaar ci kanamu nit ñi mbokk loolu ëpp naa def xamal ne yaa ngi ci néegu bi yàlla jalla waala xamal ne jéego boo jéego ak lépp loo fi def imma mu jural la tuyaaba wala imma mu jural la bakkaar ngalla waay ngeen bàyyi xel loolu bu baax mbokk suñu yonent sallallahu alayhi wa sallam nii la ñu sante xatta mbedd yi buñ ci bàyyi ay salte mu ne bokk na ci parti ci parti ngëm ki gis loo xam ne nii luy lor la ca mbedd ma mu daal di ko fay jële looloo taxit ngalla waayu julit bul jàpp ne génn naa sama pëllub mbalit sama kër daal laabal naa ko mbedd moo jëkk a dajal sànni ko fa wala tali boo jëkk a dajal sànni ko fa déedéet mbokk jullit negam ka nga xam ne mooy teggi la nga xam ne mooy lor ca mbedd ma da koy jural ngërëmul yàlla loolu bokk ci ngëm waaw ka nga xam ne mooy indi lor ca tel ca mbedd ma nag kooku moom lan la koy jural la chaque da koy jural merum yàlla loolu kon ñu bàyyi ci xel bu baax waaye mbokk julit lii nga xam ne mooy laab buñ koy wax na am doomu aadama yépp mën nañ koy laab ci fa ñu nekk waaye mu bokk loo xam ne nii jullit ñi dañ koo mandargaaloo mooy la nga xam ne mooy am njàpp soo demee ca daje daje ya soo demee ca hôtel ya soo demee ca service ya partout yaa ngi gis jullit yi ñu ngi jàpp ndax lay woote ci jàpp dafa bari heure bu julli jotee dañoo war a njàpp heure boo xamee ne nii am na ay sabab yu toj njàpp moomee dañoo war a jàpp donte ne xeet yu jëkk ya yàlla farataaloon na ci ñoom njàpp waaye naka jullit ñi di defee ak naka jullit ñi respecté amul benn xeet boo xam ne dana ko def loolu muy ngi ne lu yàlla mbokk njàpp moom yi lu ëpp ci doomu aadama yi dañoo jullit di jàpp gis ñuy jàpp dañoo jàpp ne rek lu facultatif la yu ñuy def waaye yow gëmal ni ni julli gi nekk jaamu yàlla di la jural ngërëmal yàlla njàpp mi ngay jàpp noonu la nekk jaamu yàlla di la jural ngërëmul yàlla donte ne ni même bu ca àllaaxira amul woon ñépp d'accord nañu ci ne la nga xamee ne mooy am jàpp mooy jullit heure bu xëyee lu mu néew néew ci vingt-quatre heures yi xanaa da nga ci jàpp ñetti yoon njàpp mu ne da nga raxas sa loxo ñetti yoon raxas sa kanam ñetti yoon raxas sa tànk loolu nga xam ne mooy feeñ nekk en contact ak nature bi partout dans le monde bokk na loo xam ne nii médecins yi dañ koy wax mooy feebar yi wallaate ñi ngi ko tuddee la maladie des mésoles mi ngi gën a jaare ci loxo corona baa ngi nii au plus sommet au fa gën a kawe ci président yi suñu dajee kenn du jox sa loxo moroom islam moom sant ñu ni loxo yi dee ko raxas ñaata yoon commencement njàpp raxas ko ñetti yoon ci biir njàpp mi raxasaat ko ñetti yoon gannaaw ba kanam gi ñaata yoon nga koy raxas tey jii ana ñépp ñi ngi wax protéger leen seen kanam ca la nga xam ne mooy virus yi kon loolu day nekk ngëneel bu yàlla may julit protection bu mu koy jural ci àdduna naka noonu it mbokk li nga xam ne mooy di raxas sa kanam ay yoon di raxas say loxo ay yoon di raxas surtout say tànk loolu massage cardiaque la boo xam ne day jeexital ci sa deret ji ni muy dawee day jeexital ci sa xol bi ba nga xamee ni jullit bi jàpp correctement am na chance bu bëri mucc ci feebar yu bari yoo xamee ni nii këdul jàpp moom du ko def loolu di ay ngëneel waaye nag mbokk jullit bokk na la gën a màgg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mas naa wax ak sahaaba yi ne waaye ak a neexoon ma gisoon sama doomi ndey ya mi ngi noonu ñu ne ko ah ñun duñu say doomi ndey sahaaba yi mu ne déedéet yéenay sama sahaaba ñu ne ko waaw yow mi yàlla yónni nooy xàmmee sa xeet bi ñëw sa gannaaw yowmal qiyaama mu ni mel fi nga xam ne dañ ko daan jàpp yàlla da koy leeral kanam ya loxo ya tànk ya noonu laa leen di xàmmee di leen woo ngir ñëw naan si ca la nga xam ne mooy sama déeg bi mbokk kon njàpp mi ngi noonu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na amul benn jullit boo xam ne da nga jóg jàpp ba pare lu dul ne njàpp moom yi dafay rot ci say bakkaar ba say bakkaar dana rot ànd ak toq ndox ba mujj rot ba baa di génne sa suufi weyi nga set wecc ba booy julli julli ga day doon tuyaaba waaye fekk njàpp ma moom rot ci na bakkaar ya mu ne saxaaba yi xanaa du ngeen kaay ma wax leen ca la nga xamee ne nii moom la yàlla di yëkkatee daraja yi da ca fare bàkkaar ya ñu ne ko ah kay mu ne moom mooy matal sa njàpp ci jamono joo xam ne dafa sedd baril ay jéego jëm ca jàkka ja toog di xaar julli fekk yow julli nga ba pare mu ne loolu day moo ko génn di jihaat ci yoonu yàlla def ribaat nee na ñoom ñoo yem ca yàlla noonu la doon béggalaatee mbokk julit nee na amul benn jullit boo xam ne nii da nga jàpp ba pare daa dina ashhadu an laa ilaha illa allah mi ngi noonu wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh lu dul ne yàlla ubbil la yowm alqiyaama juróom-ñetti bunti àjjana yi ne la fu la neex jaare fa jàll ngal la way bu leen fàtte loolu boo ko fàttee heure boo ko fàttali ko wax ko seytaane dalay fàttali ko heure boo génnee sa douche ba nga doon jàppee ca place ba nga doon jàppee nga la way waxal ashhadu an laa ilaha illa allah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh gannaaw loolu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na amul benn julit boo xam ne dana jàpp sellal njàppam daal di jóg julli ñaari rakka ñaari rakka yooyu farata la ñaari rakka yooyu naafile yi jiite julli la ñaari rakka yooyu tahiyatul masjid la ala kulli xaal julli na ñaari rakka lu dul ni yàlla dana ko may ci loolee mu yeyoo ci àjjana su dee ne kay xolam mi ngi ko at ci yàlla yàlla dana ko yeyoo mu yeyoo ci àjjana te loolu bokk na ku ko dundoon muy Bilaal ibnu Rabaah ba ko yonent bi aleyhi salaatu wasalaam laajee dégg naa say tànk aljanna mu ana loo gën a yaakaar ci loolu mu ne ko man de yow mi yàlla yónni fu ma mës a jàppee julli naa ca ñaari rakka mbokk njàpp moomee jógul pour julli kese na am wax nañ ko sànq jóg na pour laabal la waaye xamal ne it yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daan nañu wax ne kenn ci yéen su demee bay tëddi ngalla waay na jàpp comme ni muy jullee na fexe ànd ak njàpp gannaaw ba mu daal di ñaan ñaan gii nga xamee ni nii jàngaloon na ko kii de bara ibnu azib ca mooy ne ko nga tëdd ne yàlla jubal naa sama kanam ci yow samay mbir yépp yàlla dénk naa la ko dénk naa la sama gannaaw maa ngi xemmim di jëm ci yow di ragal di jëm ci yow xam naa amul kenn koo xam ne nii nit mën na caa làqu wala mu rëcce fa xanaa lu dul ci yow yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na day ki nga xam ne lii la mujj a wax te mooy tëje ko kenn warul jaamu ku dul yow heure bu deeyee ci nelawam yooyee dee na ci fitra mooy la yàlla gërëm ci àddina lay jëm looloo tax nga la way fexeel ba booy tëdd nga yëg ne yaa ngi ànd ak njàpp xatta bu dee da nga ànd ak janaba bokk na la gën nga jàpp bu dee sanguwuloo Omar ibnul Xataab laaj na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ndax kenn ci ñun dana ànd ak janaba ba pare dem di nelaw yonent bi ne ko waaw bu dee dafa jàpp xamal ne loolu mooy la gën boroom xam-xam yenn yi dem nañ ba dolli ca sax xataa yow soxna si ànd ak règle bala ngaa tëddi jàppal ndax njàpp moomii du ne jàpp pour julli waaye jàpp la boo xam ne dalay aar rasul sallallahu alayhi wa sallam nee na ki nga xam ne dafay tëdd fekk mi ngi ànd ak njàpp heure boo wëlbati ko am na malaaka bu taxaw sa wet naan yàlla baal ko jéggal ko sa jaam bii de bi muy tëdd daa tëddaale ak laab mi ngi noonu loolee mbokk nekk ay ngëneel yu rëy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam aadaam mooy waxtu wu ne daana ko jàppal amma yow julit soo defoon loolu ngëneel la waaye tànk sa njàppatu julit man ngaa julli benn njàpp nga julli ca rakka yu bari tàmmalal sa bopp foo nekk nga ànd ak njàpp ndax zikrullah day bokk na la ca gën mooy zikrullah bu ànd ak laab yaa ngi nekk di tudd yàlla foo mën a toll yow jullit noddukat yi yaa ngi leen di wuyu yaa ngi nekk di jéggalu yaa ngi julli ci yonent bi loolu nag yonent bi sallallahu alayhi wa sallam da daan wax man day damay sib di tudd yàlla fekk laabu ma kon soo bëggee la nga xam ne yow jullit yàlla aar la malaaka yi jege la bokk na gàllaaj ga gën a rëy ngal la way fexeel di ànd ak njàpp foo mën a toll loolee da ngay gis ne day jeexital ci yow ci sa wàllu yaram ci sa wàllu laab waaye dalay jural ngërëmal borom bi jalla wa ala yal na yàlla laabal suñuy xol yal na yàlla laabal suñuy jëm yal na yàlla laabal lépp lu ñu wër yal na yàlla boole ñu ci jaamam ya laab ya nga xam ne da leen di bëgg yal nañu yàlla boole ci ñami laabal di dëkk ak ñoom ci àjjana yu kawe ya اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا برحمتك من الراشدين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين